certes dëgg la ñun ñëpp dañuy def politique di jàppale président de la république euh, mais tey dañu nekk ci benn combat boo xam ne combat citoyen la citoyen bu ci nekk war nga mën a jug euh, wax comme li ñuy wax nii ñun puisque fii Sénégal toll ku ne xam na ne président de la République Macky Sall liggéey na lu bari ci inondation depuis mu faloo en 2012 ak léegi tey ñu yegg yàlla wàcce taw boo xam ni mënuñu ko natt ba am ay kër yu nekk ci mbënd mi fofu ñu toll sénégalais yépp yaawu ci di ko gis li ñu concerne ñun fii à Thiès suñu dëkk dafa mën naa wax ni dañ ko dëkkee ba mu fees mu am benn site bu nekk Mbour 4 wa forêt classé Mbour 4 am na ay Thiessois yu fa dem tabax fa ay kër nii nii ci illégalement parce que ñàkk fu ñu dëkk moo leen waral ñu yóbbu ñu dem def loolu euh, bi président de la république Macky Sall ñëwee Thiès ci KMS 3 bi ñoom génnoon nañu def ay pancarte wax président ne ko ñun dañu bëggoon ku régulariser fi ñu def président wax gouverneur bi fi nekkoon à l'époque euh, ñu régulariser situation bi boobu ba léegi xam nañ gis nañu yëg nañu jéego yi ci président Macky Sall def ba fi ñu toll mu des décret présidentiel pour ñu déclassifier ko loolu nag suñu nekkee ci contexte boo xam ni wax nañ ni nawet sax am na ñu fi nangu seen kër ñun dañ ci profité génn wax président ne ko situation bii xew cees il faut mu décréter déclassifier forêt classée bu Mbourkat comme ça Thiessois yi mën am accès projet marché poisson bu ñu def mën fa am projet nouvelle gare routière mon fa am Thiessois yi bëri mon fa am kër ñi fa nekkoon ñu régulariser leen fan yi ñu génn gis nañu DSCOS dugg fa def ay arrêt pour ñu arrêter les travaux nit ñi di wëlbatiku dem di continuer ay travaux loolu nag xam nañ ne arrestation moo ciy top, te ken bëggul mu am ci suñu dëkk comme président de la République nitu jàmm la bëgg na régler problème sénégalais ñun waa Thiès li ñu concerné mooy mu djublu ci li déclassé fait from forêt classée bi comme ça jàmm mën am fofu ñi nekkoon ñi nekkuloon en règle mën a nekk en règle pour ñu régler problème mbour Mbourkat forêt classée bi fu ñu toll nii 2500 familles ñi ngi fa nekk di xaar situation bi donc amna ñu doon génn wax waye ñun Sénégal day mel dañuy tàmm ne ki nekk parti au pouvoir warul di génn di wax xalaatam ci réew té loolu président de la République bi giseewul politique li soñña la notre cher président dañ la koy ñaan que plus bref délai procédure bi fu mu mënti toll ñu accélérer ko mu gaaw pour nga déclassifier forêt classée bi pour Thiessois yi nekk ci ndox mi mëna a am fu ñu dëkk bu déwénee bu tawé kenn du la wax fi dafa inondé loolu mooy suñu yité dañoo jug en tant que responsable politique ñu waxtaan suñu biir coalition majorité présidentielle tey ñu toog ñëw jàkkaarloog président defar ko benn lettre wax ko ni ko lu mu lu mu gën a gaaw mu déclassifier forêt classée bu Mbourkat bu Thiès parce que yitteew doomu aadama yi la te soxla nañu ko fu ñu toll nii. loolu moo la waroon tey ñu ñëw taxaw pour jàkkaarloo ak tasootu xibaar yi lancer appel président bi pour mu dégg ko mën ko saafara Thiès waa yëpp gis seen bopp ñëpp gis seen njariñ Thiès mën a màggee ci côté bi nga xam ni foofu la war a war a war a dem. te su ko déclassé ba pare ñu ngi koy ñaan mu tiitre ko comme ça état bi yore ko boppam mën ko doxal ni mu ko bëgg a doxalee. Cees waa yëpp am ay demande mën ci am ay parcelles mën a dem tabax dëkk pour fu ñu bëgg yóbbu Sénégal yàlla fex ñu yóbbu ko fa ci nguuru président laa la